Macky Sall lan la fi bëgg a jëlee maanaam képp ku manifesté ti Macky Sall ne ab terroriste nga yooy samba moo taxit cadre yi xam ne ñoo nekk ca gëm sa bopp day bu président Bougane Gueye Dany waaw nee nañ d'accorduñ ci loi bi day te d'accorduñ ci ëllëg la wax loolay dëgg de déggoo leen ma de Macky Sall daal fi mu nekk ni li mu bëgg mooy képp koo xam ne manifesté nga mu ne la criminel nga la ilaha illallah subsaane xanaa xamoo leen ne coow day waaw ma na ci boo xam ne day ca Sall la bokk waaw daa saaga ndey ñaari député yoo xam ne kon nañoo nekk ci opposition boobee la ilaha illallah njiital groupe parlementaire bu parti démocratique sénégalais day waaw nee na lii la waa kër Macky Sall waaw dañ koo togg nguur gi orchestré lu ñaaw li la yéen a kaa gi ne mais nag boo mi dina yëngu de maar day tali waaw tribune yéen a kaa ne ca chapitre deux ba la article deux cent soixante dix neuf wala premier parce que ci dégg-dégg Macky Sall xam ne yaa ngay wut ñoo lëkkaloo bëgg a xañ doomu aadama jàmm benn ñaar yàq alal joo xam ni kon keneen a ko moom tere yëngoog liggéey ci loo tey waa réew mi wala waa bitim réew def seenu kuréel xañ gouvernement bi la jàmm institution nationale wala internationale kompolo woote taalum réew insurrection ku fi defatin ja yooye dañuy jàpp kon ab terroriste nga yéeni dee média gi ne te daan wa day benn atu yàlla jàpp kon juróomi atu yàlla la la wax ah amande juróomi téeméeri junni jàpp kon ñaari million la ilaha illallah terrorisme kay war naa mën a yegg ba giiru dund la ko di yéene kaa ne Macky seere na wis fa de moo tax opposition bi nee nit ñi génn leen tey ji la ci àjuma ji balaa ñoo wote loi boobee ci assemblée nationale la la wax eh, maanaam deuxième vague bi day manifestation yi Macky Sall looloo tax mu bëgg a indi coppite ci ñaari projet de loi ngir xeex ak wàllum terrorisme vingt-quatre heures yéene kaa ne moo tax opposition bi duñu leen ko may dee déedéet parce que Ousmane Sonko bi la ay dëmbooj Cheikh Bamba Dièye Mame Diarra mi la projet de loi bi dara lu dul fu xati ak xaj suñu yelleef tam do ay terroriste te loolee duñu ko nangu Thierno Bocoum waaw nee gis nga loi bu bees bi la jàpp leen na ñit ñëpp mën nañoo tuumaal ne ay terroriste lañ éeway eh Samba waaw l'observateur ne opposition ba day lank nañ de wàllum terrorisme nee nañ waaye M2D nee na na ñëpp kenn manifesté waaye la fa ca takk der bari na direct news de opposition ba day da yuuxu ne lii musiba maa ba kumba la réew mi ko di yéene xam nga bu ñu demee ba ne manifestation égal terrorisme eh ay way samba dellu de démocratie dëgg Sall indi ci réew mi recul démocratique la le tey mooy yéene kaa ne opposition ba de woote nañu ci buntu assemblée nationale laa la wax vingt cinq juin bii ngir ñu fàtte sax vingt trois juin deux mille onze mbaadu libération yéene kaa dama ne la gis nga àjjumaay tey ji la mën naa saf de lool ba M2D Y'en a nañu ngir xeex laa la wax adimiru ñu ngi waaw ne lan moo tax ba opposition bi bokk ca liggéey ba bàyyi ba tey ji la muy doog a génn di wax woote woon ca 23 juin day mooy xeeñ de Ousmane Sonko waaw nee na gis nga lii buñ ci dugalee Macky Sall dana daal Sénégal laa la wax Macky Sall moom dana daal Sénégal Abdou Mbacké Bara Dolly député nee na coppite yi ah, kenn moomu ko ku Sonko Ousmane Sonko nag ay di rëbb laas wàllu terrorisme googee association de malfaiteurs waaw yàq alalu jàmbur day nguur gi nag ma ngay daral yë daan nañu lay daral jiital yéen a mar waaw nee na ñu ngi woo Sénégalais yëpp tey nag balaa ñoo wooteel waa bu bon bi la yéen étudiants papa yeeg suñu yaay yi jóg leen comme ni ngeen defoon ca weeru mars xeex wàllum démocratie bi la parce que ñëpp xam nañ ne abi jàllee tey li ñuy dal moom ñëpp xam nañ Guy Marius Sagna waaw ne Macky Sall gis nga mouvement ci boppam la bëgg a criminaliser dootuñu sëq dañuy taxa-taxatee seenu suuf liggéeykat yi ñuy dax ak retaaru salaire dootuñu sëq nappkat yi dootuñu sëq xeex góor jigéen dootul am ci réew mi rek xeex troisième mandat kenn dootu ko fi xeex Guy Marius Sagna kon Sénégal ay ay waay jug box fab li ne waaye Sonko ak ñama maa ngay jax-jaxi nag fi mu nekk ni ne Karim Gueye xurum xaax ak ñetti activiste yi ñu àndal day démb mi métti na di ànga lool